xale dina yéeg ci kaw di séentu du gis dara mag toog ci suuf di gis lu gën a gisut waaye nag santaat yàlla rek ndagam jàpp ma sa lo benn problème amul ngaañte waaye comme que léegi man yaay sama yaay kon léegi man naa doon sa taaw rek ah nun nga ko gisee amul problème waaye dangaa defar ndoo ba pare wala defara góor déggal lii. ñoom lay xaar ñu ñëw ñu doog. ah man de ma fi doogoo damay ñëw ñu. Ah, bii sama bët yaa ngi nii il faut ma dem récupérer sama bopp sa day metti. nee na ma dem noppaliku ji rek sama gént bi gi dama jàpp ba léegi bàyyi ma. dara ñu koy defee ma dem. la waroon damaa bëgg tey ñu waxtaan ndax olof dani bu ndox turoo ñu ne an baax a des man ma ni déedéet nañu rootiwaat fifi naa mii ci kër gi man maa la joxoon ne la demal nga takkalima ko bu yàlla dogal mu ñëw ci kër gi melul ni ma bëgg baaxut te duma fexe lenn lu koy génneeti ci kër gi mbaa may xeex mbaa may xuloo léegi nag pexe jeexul yow yaay yi seex te yaa ko takki woon li ma bëgg rekk mooy nga dem takkali seex ñaareel bu ñëwee maam sama goro ñu ne ci sunu jàmm ne xam nga ne fifinaa tubaab la bu amee wujj mu ne ci kër gi déranger ko ci seex lu tuuti rekk moom mooy takkal boppam bagaasam dem te duma ci feeñ doo ci feeñ jàmm ni ñooy ñu delluwaat suñu jàmm rek baax na dégg naa la waaye seex waxtaan nga ci ak ko ciy wax seex maay kilifaam de te yow yaay sama kilifa yow koy demal doxaane takk rek yoonu seex nekku ci bu ñëwee ci kër gi bu fi yàggee rek seex miinanteeg moom sax amul problème yooyu. yaa ko yilif maa ko yilif rek ñi dem takkal seex jabar waaw yow fifi naa mi man maa ko ñaani woon te ma koy ñaani lu ne dégg naa ko ci waaye ba mu ñëwee gàcce ngaa la ah, fifi naa yaa ma gën a xam ne fifi naa baaxul. mi ngi togg lu baax di fóot lu baax di bale di menace lépp jigéen buy sëy lu mu war a def fifi naa mi ngi koy def yow nag kenn mën sa dëpp sa amul kenn kenn kenn kenn ku mën a dëpp sa bànneex yow moo jaan xanaa yërëmoo ma yow xale bi ba mu ñëwee ci kër gi ba léegi danga maa gis ma fay courant danga maa gis ma fay ndox xale bay fay courant mooy fay ndox mooy téyeb dépense am te man daanaa dem sax fayi courant su ma yóbboo weer wi fay weer weer duma fay damay jëlal faja sama soxla ba waneen weer ma lijjanti ko xaw ma caat kañ laa ko gëj a jëndal silib ah nga defe ni li may dund mettiwul léegi nag fi fi ab tubaab la suma takke jabar indil ko ko ci kër gi da koy gundu bal mu def façon yoy tak ay bagasam dem ma tok ak sama goro am lima ma bëgg dimbalee ma djouf jere djef yërëm na la ndax yow jar nga yërëm waye fifina mi ngi sey xeyna kay da nga bëgg a jël sëyam bii sey ko da nga bëgg a sa sey bam jeex sey sey fifina ta lolu man duma ko setan ah lolu ëpp na de. ëppul ndax ngay def. ëppul de ndax loolu ngay def te fifi naa jëkkëram gërëm na ko mbokki jëkkëram tim gërëm nañ ko àjjanaam mi ngi ci loxo jëkkëram te incha allah li muy def nii fekk daqul ci lu baax incha bu dee dina dem àjjana ndax sëykat la te it muñkat la fifi naa yoroo àjjanaam de bàyyi leen yéen goro yi koo leen mere rek jéemal ko fifi naa mi ngi sëy bu baax seex jaratakal ñaareel bu fekkee man nag nga ci yaakaar te nga ni maay kilifa fifi naa du am wujj te man duma ko ñaanale ci dëgg ci dëgg ci lay dox tey ci lay dee doxoo ci dëgg raay raayal naa la ba sonn miinoo ko ci man li la dal xam naa ko Wow, lan la. ni jambal seex mom lañu la jambal Ya Fifina juróom-ñaar fukki at ak juróom la am amu jëkkër wër na jëkkër fu ne ah yéen a ngi doxaanante bu baax yëg na ko konop, Ya nyak ke faida, fayda yaa matadi gel moo la sarak daka jekk ngay yëgër yëgër yi xam dama laa bawoon ci biir waaye xoolal takk lootuma la Cheikh may ndeyam may baayam maay maamam maay bàjjanam maay njaayam danaa doxaani takk indi ci kër gi mu sëy si te doo ci mën naada sa xujj jërëjëf ba nga xamee ni mën nga ko jarul woon nga ma koy wax dama doon rafetal rek dama doon rafetal rek kon ndax bëgg laa jox li nga moom mais mérito woo ah, ndax li ngay wax dara ñor la ci waaye nag Fifina mii sëykat la te muñkat la. sama ngañ te Fifina mii ah jot naa bu deewee kenn du ko jur àjjana rek ndax jigéen ju baax la du tas kër te du wax lu ko sul noonu. tas nga kër.

comme noonu la fa demee quoi. bien sûr. ah mais coono man l'essentiel li ma ci am rek moom ma intéressé wala le reste c'est pas trop important. genre léegi man solution bi laa gis te déjà réglé naa man ak Roman Roman waxtaan nañ man ak moom moom mooy mujjee def dil bi woo naa na dama koy may sama doom bi mu sëy si ci kër gi. Eh, eh, eh, arrête le bon Roman nga nekk di wax ni <laughs> mais Roman bi ñuy àndal da nga xam Roman. yo xam nga lu ma sekk ak Roman. Roman, lan nga show la. Eh. est-ce que é ngi comprendre. mais wax nga o koy jël di ko may sa grand. yow da nga gis benn ñàkk feere ci man eh é grand frère que bëggee ñaareel da koy wuti du sama show lay jël o ay da koy def ay é te yow boo épi sax dama commencé É comment ça. Euh, papier yow tu la ferme et merde yow man dama laa faale ba nga may yuuxu ni ñëw sama kër di ma menacé eh Roma nobu la gis nga su fekkoon nob na la

roman dama ko koy may par A ou par B munoo ci ñat deureum et puis du yow ya koy dindi du sa morom mo koy dindi faalewuma la regarde moi merde ok bu la nexé nga nek sa gaale di talako lu la nex nga koy wax li nga bëgg du ma la ko may mais yow ya ma yeb mais roman yebuma et puis man sa lu fi nek fi di ben ben ak yow nga sa frère bu bëggé gel bu mu tak da koy wuti mais sama digli la koy la koy la koy eh, roman lay tak. te du yow ya koy dindi du keneen moo koy dindi et puis xoolal. yow xam nga Tu yow merde nga Tu ma xam nga eh génn suñu kër ci biti. ok pas de souci Tu nga nekk sec Tu yow ci biti. ci m'énerve ci biti. gis nga je te dis une dernière chose. fais gaffe à moi. go. ok baax soox. ma dama la faale yow. ma dama daf la faale bu la bëggoon su ma ko dugalee danaa non non mais noppu la. ma dama romance ci yow. ma du waay yow.